ba gimmi bi ñu gimmee xam ko xeebatuñu suñ dara royatu royatuñuy tubaab mën nañ jàng xam-xam bi waaye royatuñu leen moom moo moo nu ci dimbali euh, ñoo ngi ànd ak naar bokk suñu diine lislaam waaye royuñu seen i seen i aada dañuy doone wolof loolu seen blaa dañu ko jàngal loolu nag kon jëmm la joo xamante ne lu nu amati rek moo nu ko defal ba ñuy jàng tubaab meloon nañ melokaan boo xamante ne ba ñuy doon gën a doon ndaw xasida képp bu ñu ko bëggee jàng dañ ko daan bind ci li ñuy wax transcription française ci baati ar baati français lañ koy lañ koy jànge ah boobu tarabal alamin nga def A def H def B A ak B T ak U noonu lañ daan jànge ci njëlbeen gi waaye doon ay ndaw yoo xam ne bëgg nañ sëriñ bi waaye xamuñu fu ñuy jaar sëñ Abdou Lahad dimbalinu dikk sol ci suñu xalaat suñu fii lay fii lay tamit ndokkeelaatee ak euh, kañaatee suñu jëwriñ ji mooy mm-hmm. ndax ba mu jeexalee njàngam euh, école normale war a dem jàngale ji daa ñëw jébbal léppam ay diplôme am ak ko Sëñ Abdu Lahat xaalis bañ ko fayoon ne leen mënuma leen mënumaa lekk seen xaalis leen liggéeyal Sëñ rek laa fas yéene liggéeyal euh, daara ci lañ sosee ak daara ci Sicap Rue 10 1981 daara jooju ci la ñuy def bu ñu jógee université wàcc dem daara ja jàng ijjantu jàngat sunu murit di nga xam ne léegi dem plage xewi na dem ci barabu fowukaay yi xewi na ndakaaru mujj doon noo xamante mel ni daaree tarbiya ci noonu doon daaree tarxiya lii daal Sëñ Abdul Ahad moo nu ko defal ba nga xam ne dem nañ ba seexlu jikko ju dul jikko yu murit ay royukaay yi ñu amoon mooy mag ñi Sëñ Tuubaa yaroon bëggatunoo sol it euh, euh, lañ daan sol en tant que étudiant dañoo bëgg mel ni Sëñ Abdou Lahad kenn rek lañ xooloon muy moom ñu gis muy sol li léegi sax faf doon na loo xam ne dañu yaakaar ne Hizbut Tarqiyyah da ko imposé fekk imposé wuñu ko Sëñ Tuubaa ko indil boppam rek mu doon loo xam moom lañ bëgg di ko def kon nag tey jii dañoo ñëw ni murit yëpp rek si aar si am sax si suba dem nañu si euh, sëñ Sidi dem nañ sëñ Moustapha dem nañ sëñ Cheikhouna bu ñu mënoon bu ñu mënoon amul kenn ci njaboot Sëñ Abdu koo xam ne bu ñu ko mënoon dinañ taxaw fépp ndax ndax ndax ginnaaw ñu ngi leen di gis kon mu ñoom lañuy ñuy xoolee jëmmi Sëñ Abdu Lahat yàlla nañ fi yàgg te wér te lii bis bi ñu yàgg ko taxawee lii rek la bis la boo xam ne euh, du du bis lu dul bisu fàttaliku ak gën a xamaat suñu bopp ak doonaat ay taalibe Sëñ Tuubaa yàlla nañ ñu nangul jërëjëf. sëñ Youssou maa ngi yi nga àndal di sant. di gërëm démb jëkk say sa tànk yi neex na ma lool rafetlu ko itam lool man jànguma leen xam naa leen bu baax ndax samay dëkkandoo ngeen ñoo dëkkoon fële ci asalem te lu ko jiitu noo dëkkoon jëkk kër Sëñ Abdou yàlla dawal itam seen liggéey tàmbalee ci Sëñ Abdou mu suuxat leen sarse leen ba ngeen fees del def ci yéen courant bu bu bu bu bu mat sëkk kon rafet nañ jot ci yéen layoo ngeen nag bindeef yi ñu bàyyi yay leen ndax am na fu ñu leen dëkkale woon am nañ fu ñu leen féetale woon te dëkku leen fa féetewu leen fa ndax seenu doxin démb ba tey dara soppiku ci te sëñ Abdou ba nagani sëñ Abdou leen jëmbat suuxat leen sëñ yi tam def nañ ci lu bari waaye sëñ Mountakha itam ngeen àndoon na moom démb ba tey jii ba muy naqari mooma ba muy métti yëpp nga ànd ak moom ni ma ko waxee sëñ mun taxaa ñu ngi koy waxee huitième xalifa waaye troisième xalifa la comme sëñ Abdou Lahad sëñ mooy troisième xalifa ci catégorie bu mbokk moom itam mooy troisième xalifa ci catégorie bu yàlla ñu bokk ay mbir ndax alxuraan nañ bëgg ko te gis na ne euh, ngeen koy kii bi koor gi ni ngeen koy dundalee ni ngeen ak ak lañ leen di defaloo ca daara ci xasida ka waxoon na ne leen xasida ku ne dañu cee fekk ndax mooy seen liggéey ah leen dañu fekk mooy seen liggéey ngeen di ko jàng-jàng mu neex mu leer naññi yaatal daaj yi di sol ay bàyyi laa di takki maxtu kuy rey murit bu leen gisee <laughs> kii lay tàmbalee ah? waaw lépp sol nag mooy murit dañu amul dara léppam sëñ bi la ko moom yooyu nag da ngeen noon noonu ngeen doxe atum yi ku ne jàpp ay milliards la fiy bàyyi ah? waaye léppam <coughs> na sëñ Abdoulaye defoon rek la def bàyyi fi dara sëñ Abdoulaye yor na xilaaf ak ñaar fukki at ñaar xaw yaakaar naa li fi bàyyi lépp weesu dix-huit mille dix-huit mille francs ci poosam neewoon na itam noo bokk li ñu doon waxoon na ko fii maa ngi fi ñu leen di yërëb ak yéen ab sarax waaye su ma leen wanee gannaaw naa leen bàyyi loo xam ne ku leen mere du ko mën nangu ngor kenn mënu koo nangu jom kenn mënu koo nangu fulla kenn mënu koo nangu dëgg kenn mënu koo nangu loolu nu bàyyi nag moom leen bàyyi yéen ñi itam ni nag àdduna lu ngeen am yéen a seen bopp waaye fañ jëm na nga xam ne dara du fa doy bon xotti gerte ñoo koy bokk yoon woo leen jaarale ni leen tamit ku leen di mere na leen mel ci sëñ fu sëñ Tuubaa tuxoo tuxu leen bu leen fa fanaan sëñ bi daal loolu wax nee boo ñàkkee sëriñ bu gën sotti amoo ko bu dee bu dee bu dee bu dee guddeem fanaan te amoo ko kon ku leen di mere na leen mel ci sëñ masama bi fi sëñ bi fi sëñ bi doog jóge ñuy màggal sëñ ma doon ko organisé bëggoon jàngal la ma at wax wax wax ji wér la te sëñ doo ko waxoon ne ñetti ñetti bis yi lañ sañ xadar màggal gu mag ak ak ak ak ak gàmmu yaakaar naa ak poroxaan ak poroxaan loolu at at waxoon ah <laughs> dañ leen a digal loole ndigal loolu ko ba di at nag yàlla na yàlla seral ay yaxam li tax sëñ Tuubaa amul tàngan atu jàppoon nañ ni kenn mënu ko wut waaye gisa ko rek bi nga ñëwee fàtte nañ aatu fàtte wuñ ko waaye fàtte nañ ko ndax euh, lépp a ngi dox lépp a ngi yokk sëñ Tuubaa demee noonu kon nag yoon wii leen sëñ Abdou euh, jëmbatu te ngeen jaar ci te waxoon na itam dëkk bi ngeen jëm ak yoon bi ngeen jaar du ngeen ko wàcc bàgg ca <laughs> tey neen fi ne dama leen suudeeg sëñ Tuubaa ba su ngeen bëggoon dajji ko du ngeen ko mën kon ku leen mere kon du leen maal tous ndax maga leen defar ni ah, ah. dañ ne ko ñaan ñàkk soo jëndee yaa moom sëñ Tuubaa nag lim yor moomu ko alal suñu borom da nga da koy jaay am na loo xam sëñ Salim Maodo xam ko wax yat jóg jóg sax bi gan gu ñëwoon sama nekk mu dal ko man kook nag bàyyi la ci man mu dal ko sama nekk ba ngoon jot mu ne ma mu andi añ mu ne ma nuy def ci añ koy boole wala dañuy bokk ak ma ne ko ndigal di laa jël loo ci wax njokk mu ne ma yow dama laa jël bu ormal mukk ba bañ a moom de daal ne amet gi moom nanga ko moom bokk moom ta bu ndab li noppee gi ñëw baax ndab li noppee mu ñëw mu lu ma la bëggal yàlla képp ko xam ne bu sëñ Tuubaa amuloon doo ci yoon wi lu muy ab jàppal ne kooke la maam sant ak sant Njaay ñe la mu defal sëñ maam gi <laughs> defal sëñ Tuubaa la ko may ko le may kon yoon wi noonu la demee hmm? kon ñaan ñàkk su gën a yaa moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah